mënu fi indi daañu dellu des na tuuti ci moom xam nga sëñ Mamor ab jullit bu demee ci ab barab bu ñuy denc ay jullit bu dugalee tànk ndeyjoor daan asalaamaaleykum yaa deel xamil muminin jàll jàmm yàlla ji yàlla na taxaw yéen ñi tëddee kër yi te nekkoon jullit inna incha allah bi mu laay xam des na tuuti ñun ñii di wax ñu indi nu fii nu fekk si leen tudd nga ko Abdoul Khadir Ndiaye muy xale ñoom ñoo ko mag moo taxoon def émission bi. Mm-hmm. yàlla jël na ko bàyyee fi bàyyee fi ab diir semaine bii mu jël jëmm joo xam ne illa yaqaada allahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkinin lastu ashuku abadan fi kawni jaaral badi ajaban lil kawni baytu boobu su doon yére boo ko daggalee aatu dana ko jot du ko ëpp du ko yées ci sa biir laajte nga tudd fi baatu intellectuel intellectuel baat bu ñuy jëfandikoo ci réew mi ndax réew mi dañuy jàng tubaab intellectuel mooy intellect mooy am xel am xel am xel nga ne waa ji am na xel waaye man am na baat bu mooy taamu ci baat boobu Hmm. université yi nga tudd ña fa génn ña fa ëpp euh, du ñuy intellectuel ay instruit lañu. instruit intellectuel mooy ko ràññee ki la fi indi li tax mu indi la fi lam la fi indee nga jóg ci xam ne lee nga jóg fi te la nga fay jiital moo la fay fekk xam nga def sam xel loo xam ne sama xel bu ñu ma jëlee woon tey jii fu ma jëm duma fa jariñ kooku ku ci génnam xelam du mu intellectuel mais jàng na nag intellectuel mooy ku ràññee lu am njëriñ ak lu amul njëriñ loolu mooy intellectuel mais réew mi boo jàngee benn njàng rek ñu ne waa la déedéet da naan jàng na intellectuel mooy ku ràññee lu am njëriñ ak lu ko amul intellectuel mooy xam loo fiy def ak nu xam loo fi def ak noo koy defee te jëf di nga fi def nag boo liggéey bu ñu la ko fayee du la doo ko doo ci am rëccu loolu mooy intellectuel Euh, Imaam euh, jërëjëf euh, tojal nga nu ko tey jii sëñ Atou Diagne ku ne xam na taxawaayam ci yoon wi waaye tey boo ma doon wax lu la gën a marqué ci moom lan lay doon. Atou xufraanullahi wa ridwaanuhu alayhi ala dawaam njëgalal yàlla ak yërmandeem yàlla taxaw moom lool Atou dafa nekk visionnaire dafa am basira mooy bëti bëtam bay gis xam nga bët du gis bu bët doon gis kuñ ni salmaxalu dellu këram xol mooy gis hmm. aatu fi ñu jaarale ñëpp nañ ci jaarale mooy université de dakaar après mu Cheikh Anta Diop bi mu fi ñëwee nit ñi di di wax ay léninisme lañu len hmm. lénine benn waaye bu dëkkoon si la wala ñu ay ay maoïste lañu ñu jël mao bokk jamono ci réew mii nga gisoon muy réew Seydil Hadji Malick Sëñ Touba ñi doon jàng ñëpp dañu amul yeneen sëriñ yoo xam ne dañ ko jëggaani da nit koo xam ne kontaan na lool naan la man léniniste laa maanaam xalaat bi ma jàng mooy Lénine moom ma ci doy buñ ma bu may liggéey ci réew mi wala ñu jox ma dara wala ma laaj ba sama loxo Lénine ay xalaatam laay doxal kenn ki la maaw laay doxal kenn ne Torsiki laay doxal ñooñ ñëpp ñu bëgg a doxal seeni xalaat jànguñu alxuraan ki ñu wàcc moom alxuraan du du modèle ci ñoom aatu kon fi mu génne dafa génn ci jamono boo xam ne xalaat yi ñuy jëggaani yépp te ko def sax waxuma du ñu jànguñu alxuraan waaye nekkuñu ci diine ji mu teg ko ci suuf ni xidmatul xadiimi mooy damay liggéeyal sëriñ bi daal nag indi révolution culturelle et cultuelle loolu mooy lan indi na colin bu njëkk réew mi ñu ko xam ñëpp façon yére bu ne xew ne Sénégalais yi dañ nekkoon ay nit ñoo xam ne c'est des grands consommateurs maanaam lu ñu jéggaani rek fii dañ koy njëkk sole ci Ndakaaru mu ñëw indi yére yu jot yu yaraaxul yu fat ba pare nangoo jàng ba pare indi ci biir iniwersité bi xasaayid yi xasaayid yi nag dafa nit ñi dañ ci war a xam dara xasaayid yi ci benn thème lay gravité mooy salawaat ak am daax loolu mooy lan alayhi salaatu wasalaam mooy kan Mm-hmm. bisimilah. Ah, Ali alayhi salaatu karaam mooy kan. Mm-hmm. mun nag jëmm jooju nga xam ne dafa wax ni karaamati xatiyat yi muy xaadimu rasul mm-hmm. nga xam ne ama charan la feeñ charan lakum min addiini ma wasa bihi nuuxan wala di awxayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa muusa wa isa an aqimu diin wala tafarraqu fihi an boobu sëñ tubaa feeñ jamono mais dafa am bu am secret bu tuuti bu am solo foofu sëñ Mamor. Hmm. xam nga charan ci arab mooy légiférer légiférer mooy xàll yoon yoon wuy attee. Hmm. ak aaya boobu nga xam ne mu nga ca surtout Shura. Hmm. ci la Sëñ Tuubaa feeñ ci jamono. kon Sëñ Tuubaa feeñu jamono dafa indaale charia at mi mu feeñ mooy atum charia nga dégg ci njëkk muy feeñ charia ni mu fi dajul fi mu waroon daj nit ñu dunduñu ko. aatu mi nga tudd léegi bi mu nekk université kenn ku ne yaa ngi doon bàkkoo yaa ngi doon damoo Lénine yaa ngi doon bàkkoo yaa ngi damoo Mao Tse-tung yaa ngi doon bàkkoo yaa ngi doon ay Trotsky yaa ngi Karl Marx maanaam yeneen i xalaat yoo xam ne ña ngi ko jege ci Occident moom la réew mi doon dund mu daal di génn ci diggante boobu nag daal indi lislaam ndax muridisme mooy lislaam daal révolutionné njàngin mi nit ñi commencé xam ni kii dox ci université bi am baccalauréat di def ay faculté yu defee ba pare di raw <laughs> di raw di ci génn 96 76 ba léegi dafa yàgg ça fait 40 ans mu génne révolutionné euh, yoonu murit hmm. révolutionné l'islam parce que da ko yóbbu ci beneen contrée ci beneen dënd ci beneen génération loolu mooy liggéey liggéey mooy nga jël diine ji tas ko ci ñoo xam ne bu loolu yow duñ ci dugg waaye nag dafa am chance dafa taseeg gaynde dañ ma terme bi <laughs> Cheikhul Abdou Ahad mhm. gaynde la suñu suñu toxaadee waaw dafa taseeg koo xam ne euh, xamul noo koy melale mais histoire foog waa Sénégal yi xam ne dafa am lu ñuy wax siiram histoire islamique baatu tubaab amul xamul baatam dafa am ñuy wax siira siira tubaab xamu ko c'est pas de l'histoire l'histoire mooy xew-xew boo xam ne ñoo ko fekkee bariwul wala ku ko bind daf ko moom dam ko neex la ko bindee wala mu bindal ko ñu ko neex loolu mooy histoire islam xamul loolu dafa am lu ñuy wax siira mooy Abu Bakrin bi mu fi nekkee wuute Rasulullah am na nu mu fi doxalee jàngee ko ka fañ ko jàngal Omar Ousmane Alioune Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu bi mu ñëwee. Euh, dafa taal diine wane diine nit ñi bëgg diine kenn complexeetul ba pare nag mu mu mu mu teg ci tànkam lépp loo xam ne xam nga ko xam naa ko mooy bu fi kenn football bu fi kenn yoote bu fi kenn bëlot chablat waaw bu fi kenn tëgg tama mhm. lu dul charia bëgguma ci dëkk bii parce que ko son loolu la bëgg taseeg nag aatu mu xam ne kii mooy sëriñ bi kii mooy sëñ Tuubaa kii mooy lu ne loolu moo tax ñépp fekk si ko si ba léegi ñooñu école boobu nga xam ne jàmbaar jooju moo leen formé amul benn secteur d'activité amul benn filière bu ñu jàng université boo xam ne doo fa fekk benn ku ci bokk di musulman sol yére yoo xam day wane musulman la man lang yëpp gëm xaadimul rasul doyloo ko beesal nag